salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ne naka seen journée ba mu ngi neex ñun alhamdulilah saa yu jàkkaarloo yéen dañuy bégee di xàpp bu baax a baax mais tey ñu ngi Marisa ñuy waxtaane si wàllum tatouage mu nekk tendance mu nekk phénomène boo xam ne xale jigéen yi muy mag yi muy mère yi muy jeunes yi sax xale góor yi sax dañ koy def ñu koy def nag fépp ah di ci wane xëy na seen taar la ñuy yokk ñu bari nee nañ seen mais tey dañoo wax dañoo ñëw seet si Tyco kenn dootu ko présenté mu yëngu si wàllum tatouage moom lañ fekk fi tey ah, mu ñuy wax si tatouage bi ni mu demee jaar-jaaram tuuti rek si info bi balaa loolu damay ne Cheikh nga topp ma ñu dem si info réew mi. waaw maa ngi leen fay. waa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmm kay yéen nag. tey tey bu ma la doon ne Tyco mooy kan. ba mooy koo xam ne peut-être boo déggee turam rek dana ii moytul kooku. pourquoi ii moytul kooku. ah mais parce que nit yi dañoo mën a garaawal. la ci tatouage nan la la wala. en fait tatouage euh, genre euh, yagne na quoi bi mu def mais bon lol, c'était juste pour sama tu comprends c'était pas pour Niti quoi comprends parce que man dama tatouage mais bon les vieux que bëggoon naa tatouage tu comprends t'as xamoon un chien, t'as na te sax xale xale woon naa te duma dem sama papa ne ko jox jox ma dem ci comment ça se passe Ap ma ko defal sama bopp léegi nag par sur les la avance avance ba gars yi ne yow bii rafet na ku ko defal ma ne sama bopp léegi di ma ci laa commencé di defal est-ce que tamit euh, ses parents accepté pour nga def non mais euh, ñoom parce que maanaam moment boobu noonu euh, mais mais man waxuma leen ni maa ngi def li sama yaram parce que dama laaxatu def ko. nekkul euh, bi ñu ko gisee tamit nekk li xaram na xaraamul et tout parce que instant yii mënuma ko gome mais mais manam légui au final wax ci passé na quoi mais actuellement ni xam nañ mom lay def te manam dañ ma ci jappalé ñu gis ni tatouage dafa bokk instant dafa bok Sénégal té avant dañ ko don téré tay kenn du tatouage ken kenn la tatouage nan la la apporter. ba en fait euh comme li nga wax ni nga ne nga ne avant dañ ko dom téré en fait tatouage ken musu ken musu ko téré mais jusque dessin yu bees yi baal euh, ci lañ doog euh, euh manam japp ne moy tatouage parce que avant couleur yi ñom dañuy def jamu manam dañu def jamu ti jamu jamu sen sen tuñi quoi du ko tatouage parce que ñom juddoo wuñu tu vois léegi tamit euh, sama mam man muy olof lene pour tard dañuy jël mooy seen gencive yi jamu jamu signe tatouage tamit du wowe mënul wowe dara lolou tatouage tu comprends lene jamono day dox tu comprends au au temps am téléphone yo xamné ne sa biir mais mais léegi am téléphone yoo xam sa biir poche nga def ak moom tu vois kon boog manam tatouage yooyu noonu nga xam ne ñii euh, da euh, euh, maanaam ñii def ko seen tuñ mo la neex wala def ko seen signe mo la neexoon am ñoo xam tatouage bind seen tur jëkkër mo la neex muy tatouage comme comme signe comme bi am na ñoo xam ne seen baabaan moo leen neex am ñoo xam ne seen sourcil mo la neex kon ba légui tubaab tatouage la kay woy mais jusque dessin ñoy changé. ñu gis ni que Sénégal ah, bo tatoué dañ lay sikkel dañ lay xolé ben signe c'est-à-dire xalé yu yi dañ lay ñeme Euh, yow lan nga si jàngat si loolu dëgg la mais bon c'est pas forcé quoi mais parce que euh, euh, nit aussi nekkul ne nit da nga koy gis mu sollu gàtt kasa nga ñeme ko. mënul nekk nekkul tamit nit da koy gis moom mu muur ibaadu rek yow nga ne yii ki yaram la mënul nekk kon du coup tatouage dafa nekk affaire boo xam ne nekkul ni waaye damay damay jaay wala nekkul ni wuy man cagalaa mais plutôt lii moo ma neex man maa moom sama yaram man ka maay dugg sama bàmmeel su ma neexee tatoué su ma yeggee ci yàlla ba luñ ma def ma jël. nit ki. yow romb nga mu ne la bande baa ngi nii ñëwul ci yow mu ne la ee yow bande nga de dal ko jëwee mais comme que jëwee na la ko rek santal yàlla parce que moom amul fitu ñëw taxaw sa kanam ne la bande nga wala caga nga wala lii nga bu dee bu dee dafa ko dafa ko sa kanam rek ba am alhamdulillah quoi ñu gisoon euh, say sinap da nga daan sinap da nga daan tatoué ay sexe di ko dugal instant ñu gis ne wañ nga ba nga amoon problème justice ba ñu tëjoon la dëgg la wala dëgg parce que ñun dañoo dégg si dañ lay laajte yow mi personnel yow mi toog la ñuy laajte. ba yow soo soo ne euh, da nga doom tatoué loolu mooy maanaam lu yàgg la mais loolu du ma ne du ma ne doonu moon tatoué mais ba tey maa ngi tatoué ay sexe tu comprends mais sexe yooyu noonu comme yow sa sexe yow. du ma ñëw na ma ne eh ngaayal ma tatoué la sa sexe mais plutôt yow ñëw ci man nga niti ko dama bëgg a tatoué sama sexe defal ma ci lii man tatoueur laa mën naa ko baatam la koy defal te ba tey dama koy def mais tam bu fekkee tamit wane dëgg la dam doom naa ko wane mais plutôt su ma ko doon wane dama doon basé wu ci réalité tatouage réalité tatouage mooy lan mooy liberté liberté mooy lan liggéey naa liggéey liggéey naa lii nii ba foog ma woon comme samay client parce que tamit euh, menuisier bu defaree bant bu defaree lal da koy photo euh, maanaam euh, ku jaay dafay dafay photo télé maanaam kuy ñëw dafay photo yërem kon la moo tax maanaam tatoueur bi moom mënul tatoué ak fu mu rukkee rukkee ki mu ne ko fotool moo tax mu photo léegi bu photo na koy wane mais tamit na ko wane fi mu ko war a wane comme bu dee Sénégal dañ ne da nga koy wane fi nga ko war a wane mais bu dee tubaab yi seen yoon new ci façon ni nit ki nangu rek te man nit ki moo mës a nangu ni waneel moo tax ma doon wane léegi bu nit ki nangoo mu ne ma wane justice moo ne tamit même bu nit ki nangoo amoo droit wane parce que fii Sénégal la li wëg li quoi loolu moo tax ma arrêté mais quant à tatouer sexe ba léegi maa def. ñu gis ni ñu euh, bari da nga leen di tatouer lan ngay ëpp li ngay tatouer tatouer ci loxo wala sexe bi wala ci ginnaw wala wéni lan ngay gëna a tatouer xale jigéen ni lan lañ gëna a bëgg. ba ah, mais mais en général jigéen ni mom euh, du ma ne carrément bi mo ëpp quoi. mais dama ne mën mën naa ne quoi ci góor ak ci jigéen jigéen laay gën a tatoué li jigéen laay gën a tatoué mooy am na ñoo xam ne seen loxo moo la neex seen sourcil seen ween seen taat seen sexe ça dépend mais jigéen moo ci lu may tatoué. ñu gis ngay tatoué sexe ay awra jigéen ay ginnaaw jigéen weenu jigéen nga nekk góor ak nga yëg sa bopp ñoom tam ñu nekk jigéen rek muy góore jigéen est-ce que des fois doo ci am problème. problème comme ban genre problème. nga mu yëg boppam nga yëg sa bopp. waa dëgg la bu fekkee moom yëg na boppam ba loolu moom la man su ma yëgee sam bopp loolu man la mais xam ma lan mooy problème bi fa la fa la coow li di amee bu fekkee ñun ñaar yëgante nañ suñu bopp suñu kàddu juboo loolu moom leneen mën na xew mais fekkee carrément man maa ngi ko nii gis naa ko yëg naa sama bopp ok d'accord yëg naa sama bopp mais moom lii andiwu ko fi ci comprends moom tamit yëg na boppam man yëgu ma euh, sama bopp parce que góor laa tu comprends te nature góor euh, mooy leen forcément bu gisee taat par force yaram ma dafa war a am am nu muy demee quoi bu fekkee ne dafa gis taat par force yaramam demeewul noonu soit peut-être fii dafa bëri nit et tout wala wala wala maanaam ci da ci liggéey comme truc gynécologie parce que ñoom mën nañu yëg taat mën nañu gis taat seen yoon new ci seen yoon new ci taat parce que dañ koy parce que dañ koy faj comprendre nga mais boo xoolee ak man nga xam ne euh, taat bi tamit def loisir muy ay dessin ay papillon ay comme ça quoi. mais yaa des fois nga koy def. non du ko def sax non mais du ma ko def parce que dama dama am jabar. kon doo jàdd. du ma jàdd. ba non mais xam nga su ma la nee góor bi du jàdd parce que amul occasion mais tamit mais tamit jàdduma ma même. mais des fois xale jigéen ñi ñëw ba fii ne la ci ko dama bëgg te dëgg yow. non mais mais pas loolu mën nekk quoi mais suñu mi ko feneen lañ koy waxee mais parce que xam nañ fii sama jabar mi ngi fi. parce que jabar du non même même euh, sama jabar xam nga la moo tax du parce que xam nañ ne carrément. man damay liggéey ak sama jëkkër te sama jëkkër euh, jigéen de ñëw salaamaaleykum dama bëgg a piercing foo bëgg a piercing dama bëgg a piercing awra mu mu bind la sa sa mais sa reçu et tout defal jox ma affaire yi ni bu demee xam na ndaw si xam na ni xam na jëkkëram su mu ne si li bu ndaw def ci yëf man xam nga maanaam góor laa a des fois y a des fois man dama ne kii nii dafa ñëw pour liggéey dem ko liggéey point. pare pare ci. booy tatoué awra jigéen ah mu bari nit yéen ñaa kese yéen fi nekk waaye wala yaa ñëpp yéen fi toog waa waaw yaa de yaa de mën naa tatoué awra boo xam ne moom dafay bëgg jëkkëram guñ ko parce que jëkkëram mën na fiir mën ko kànjam kon kon forcément instant maam ko sa newuñu am na ñoo xam ne seen copine da leen gunge c'est forcé yaa de faaw tamit man tamit sama jabar mën na fi rek euh, c'est pas forcé que ni saa yu mu koy def sama jabar dafay nekk mais bon yaa maanaam lu lu ci man ak nit ki ñooy wéet mais cela leneen mën na ci mën na ci am lu dul tatouage bi même bu fekkee tamit am na ci c'est possible mu am ci parce que tamit ay nit bu ci amee tamit ba moom moom nekkul dafay génn mu ne ti ko def na ma lii man tamit du ma ñëw naa la wii mais noonu def naa ko lii loolu tamit leneen la. kon kon kon yow da ngay jàdd suuf ñu gis ne tamit ah, am na ñoo xam ne dañuy ñëw ñu ne la nga tatoué ma sama turu faat ñu dem ba ba ñu am problème ñu ñëw noo koy modifié noonu. waaw si si mën na nekk parce que euh, am na ñoo xam ne dañuy def seen turu jëkkër seen turu fat et tout xam nga mën nañ bàyyante mën nañ bàyyante et tout quoi wala divorce et tout quoi léegi nag maanaam bu ñëwee ci man mën naa ko mën naa ko defal euh, camouflage camouflage mooy maanaam mën naa jël leneen te ko ci ko tur bi ba tur bi feeñati mais kantaan nag dindi bi man duma dindi parce que dermatologue moom mooy dindi tatouage ñu gis ni tamit euh, tatouage dafa bëri ay façon ban ak yi nan lay demee ba tatouage yi bëri na façon parce que xam nga la moy lan la tubab di woyé tatouage lo xamné dang ko dessiner ba pare jam ko ci biir quoi mais tam mën na dessin comme ci kaw mëna nek tam jam ci comme amna na ay aîné aîné tatouage lañ koy woyé mais te bokul ak li may def mais aîné mooy da ngay jël ay ñuulal et tout dessiné ko léeg li une semaine deux semaines comme ça mu dem yoonam loolu mooy loolu ba tatouage la mais ñoo simple à part la mais man tatouage bi may def mooy tatouage ak ak ak machine machine à tatouer boo xam pour pour mu génn laser moo koy mën a génne quoi wala nga xam noo koy defee ba maanaam au final mais dina dindeeku nànk-nànk. à peu près prix yi ñaata la day cher wala. waaw prix non cherul parce que prix yi ça dépend ci nit ki ça dépend ci pays bi. kon kon ku bëgg a ñëw tatouer des fois dina am ay mineurs yu ñëw ci yow pour tatouer est ce que yow di nga leen tatouer wala yow. waaw yàlla des même man genre soo ma woowee comme yow. comme yow nga woo ma quoi ne ma dama bëgg tatu et tout tout gisuma la mënuma xam ne mineur nga nga mu wax ba ma xam ne yenn na maanaa dama lay tatoué bu fekkee dama ne wooy am naa 16 am naa lii dama ne demal ba ba mat boo ne ma carrément sama yaay xam nga xam na ko li wëg lii et soo ànd ak sa dama lay defal parce que quoi sa ngi fi ñu gis ne jot nañ dégg tamit sa benn interview nga ne da ngay yan ex yan wéy star a baa man ñi may tatu bëri mais bon baa du ma kii maa defal kii maa defal parce que man mais parce que man ba a kii tatoué defal kii maa defal parce que man du kii quoi Mm, sama moo tax ma ne man sama bopp man du ma jaay sama bopp li may jaay moo may jaay. est-ce que euh, sa snap yi nga doon dugal arrêté nga ko ak tatouage tatouage lan la la apporté est-ce que tey tey boo doon defaat belon nga judduwaat est-ce que di nga defaat métier bi est-ce rëccu woo man su ma sañoon hmm, képp kuy góor di nga nekk tatoueur. xam fu ma teg loolu noonu ba ñii di ñafante. dembak ay tu tu tu tu tu tu tu tu tu ko xam manam nga am bac plus li li li li khalis bi ngay am hmm nit bo xamne mom meuna tatouage di bien waxuma ay affaire de meun meun lu quoi nit bo xamne meuna tatouage hmm manam euh ben mois am ben mois de ligueyam ma meuna fay sa double salaire lolou khalis la tu vois tamit tamit euh tamit lam mo ci gëna neex moy yow def nga loo xam ne yow yaa yee sa bopp boo bëggee yeewu yow yaa arrêté sa liggéey boo bëgg arrêté kenn du la commandé kenn def dara parce que yow moom sa liggéey bopp. tu comprends waaye maanaam da nga maanaam euh, euh, euh, sa passion. sa passion ngay liggéeyee mais nekkul ni dangay ngay yow fajar benn mais benn kii di la commandé benn supérieur di la commandé AFSC wala ma daax la wala ma lii amul amul. yow daal vie indépendance moo la neex ñu gis ni am nañu ay sa yeneen morom yoo xam ne dañuy tatoué nooy wax looy wax ñoo xam ne tey tey dañoo bëggoon mel ni yow wala bu ñu bëgg a tatoué te xamuñu yoon bu ñuy jaar tey tey boo leen doon ñaax loolu nga leen di wax. ba la la leen wax ba ñoom ñu bëgg lu ñuy def ñu bëgg lu ñuy def ñu xam lu ñuy def te ñu mën ko loolu rek ça va le reste moo ñool boppam. merci ñu ngi lay jaajëfal dañuy bàyyi nga tàggatoo ñu moo waaye maa leen di di leen gërëm. merci ñu koy koy jëfal bu baax a baax di demee remercier na suma sista yi xam ne dañoo jël seen temps yëpp accordel ma ma tourné émission bi vraiment kontaan naa trop di remercier Cheikh bu du woon yow làmbaay ñaaw di remercier ñëpp ñoo xam ne tamit dañoo jëloon seen xool ak seen xel yëpp di ko def inforé di remercier ci ko sonal nañ ko fatt nañ ko mu ngi maris da leen fi doxantu man sax maa ngi ñëw tatoué kon noonu la kon yes